para mënta yàlla bu mu taala moom la njëkk di gërëm ci yonente alayhi salaatu wasalaam ba moo ko ne iqra bismi rabbika allazi xalaq suñu maam Cheikh Ahmad Bamba ci la jëf balaa baax xam-xam day jiitu Cheikhul Khadim nee lépp lu ngeen di jëf na ngeen jiital xam-xam su ngeen bëggee li ngeen di jëf jëriñ leen sëriñ bi lépp loo xam ne aw ay la ci àdduna ak alaaxira mi ngi ànd ak réer li muy mooy njëriñal àdduna ak alaaxira xam-xam moo koy joxe lépp lu ñu doon ci àdduna ak alaaxira ak moo koy joxe Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu jàngaloon na ñëpp xam-xam ba waxoon ne samay jënd man Sëriñ Tuubaa dafa yulli xam-xamu diine bi diine demee xam-xam it yaatu moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne taallamu min al ilmi maa shi'tum jàng leen ci xam-xam lu leen neex kenn ku ne xam-xam bi ngay bi sëñ Moustapha di woote fii yàlla dugg suñu borom jagleel yi sëñ Tuubaa yaara ji koore juróom-ñaar ak lu topp ñu ciy jàngale alquran mbooleem xeetu langue yi comme ni ko si Ahmad Bari waxee léegi nii ak mbooleem xeetu xam-xam yi ak métier yi nga xam ne dafay jëriñ président Macky Sall nee na moo wax ba mokkale ba jëriñoo si sëriñ ci jàmm ak dal ñii ñaan ñi nga ko được defee nga ñaan